aywa le tout jeune doyen Abdoulaye Cissé démb ci guddi ngeen àndoon ak moom ci plateau bu am solo euh, mu doon waxtaanee lu jëm ci accident yi ak euh, euh, jafe-jafe yi mu mën a jur doon dalal également ay borom xam-xam félicitations le tout jeune doyen Abdoulaye maa ngi lay nuyu. Adja yaa doon coaché ci ginnaaw yow tamit. Ah, non man kay ci foog bi. <laughs> ñëpp ñëpp jàpp nañ ci ñaw ko bokk. gis nga jeune doyen lu mu la. Ah, waaye gone léegi da ngay guddee sax ni aman ah, suba du ma mën a xëy wax démb damaa <laughs> <laughs> merci beaucoup jërëjëf ñoo ko bokk merci beaucoup pour la euh, voilà la qualité des des débats ñu ngi maa ngi lay ziar bu baax. Mm-hmm. plaisir de vous retrouver ce aywa Chérif ñu ñëw ci euh, jàngat bi jàngat bi nag euh, soxal euh, li xew muy l'actualité mortale Malick Thiandoum Chérif d'abord ba la ñoo ñëw ci thème bi sax ba la ñoo bëgg nañoo jàngat mesures yi nga xamante ne gouvernement bi jël na ko muy ñaar fukk ak ñaari ponk yoo xamante ni jàpp na ne suñ ko jëfee Ablaye accident yi mën na du ne dana jeex waaye quand même ñii mu jégee daay moom dootu amati Sénégal ban jàngat nga jëf ak yan point sax nga ci gën a xëy na bën a bàyyi parce que bari nan mais am na ci yoo xamante ni xëy na jàpp nga ni ñoo ci gën a fës. Euh, Chérif merci le défi bi c'était c'était énorme pour le premier ministre ak équipe parce que sas bi dafa dafa dafa diisoon parce que fallait mu satisfaire attente public bi public bi nag ñëpp la chauffeur usager pouvoir public acteur du transport am na mesure yoo xam ne mën nga ko jukki mais li tax mooy mesure bon sens la batterie wu mesure de bon sens la ndax boo xoolee li fi jaar démb ci seen plateau yi ci fii am na lu bëri loo xam ne ni xel junj na ko ni lii moom la ñu war a def donc mesure yu ci bëri bon sens la parce que ñi am nañu ay constatations yoo xam ne mën nañu koo def ci transport bi ndax boo xoolee ku nekk mën na remarquer ni surcharge am na donc surcharge solution bi lan la wàññi bagage wàññi bagage yi noo koy defee. porte bagage. bagage la surtout boo xamee ni porte bagage daganul lu daganul dañ koy dindi nga jël ci beneen ñu ne la oto yi day daw pneu yi xëy na li ñu ciy xalaat rek mooy pneu yi nañ fexe mu doon pneu yu baax mais dafa am yu bëri yoo xamante ni bu mesure bi tegoo ba noppi nag. mise en œuvre ak na muy demee xëy na mën na am ay gàllankoor mais dans l'ensemble ni ñu ko doxalee ci tàng-tàng bi loolu lañ doon xaar éviter nañu aussi piège wu def ci batterie mesure yi loo xam ne jaru ko woon sax parce que boo xoolee boo comparé quand même parce que loolu moo tax peut-être que bii am loo xam ne njort bu rafet moom lañ ciy am. bii c'est réalisable comme on dit. exactement soo comparé que conseil interministériel bu 2017 première mesure ñu ne oto bu amul këyit dañ lay fourrière loolu dafa jarul woon sax waxtaan en fait oto boo xam ne amoo li war a tax nga tegu ci kaw tali bi bu fekkee ni dañuy def concertation pour première mesure ñu ne loolu la mais li ci des da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay jàpp ni mais parce que defuñu ko dafa dëkk ne loolu éviter nañ piège boobu piège yu maanaam des mesures rébarbatives yoo xam ne nii finalité ba du mujj fenn loolu éviter nañ ko deuxièmement aussi ils ont ratissé large mais ratissé large bi nag am na si am na loo xam ne nii peut-être boo ko toppee ba topp ko dana am ay gàllankoor yoo xam ne moom moo ciy feeñ mais toujours est-il que ñëpp ànd pour mu mën a nekk ce sera une bonne chose parce que pour ñëpp la mais aussi lu mel nii soo ko doxalee waroo mu tegu ci kaw ñenn ñi rek ba indi leen préjudice te loolu peut-être que mun nañ ko analyser boo seppee mesures yi benn par benn. Mm-hmm. am na yoo xamante ni di nga xam ne lii du mbiru 72 heures. Mm-hmm. parce que lu ci bëri premier ministre c'est vrai sas na ay ministre am présenté leen ma dans les 72 heures. projet de décret présenté leen dans les. 72 mesure bi voilà. mais yi ci ëpp sax sas na boppam voilà sas na boppam ci dans les soixante douze heures mhm. ak ay yoo xam ne ministre sectoriel yi ñett ñoo ko séq xëy na di nga yaakaar ni am na ci ci ci kenn koo xam ne bu ko dina mun a dem mais li ciy laxasu ci ginnaaw moo bëri de telle sorte que mën nañoo am problème ci taxawal ko ci soixante douze heures yi bu mhm. weesoo soixante douze heures yi enjeu bi aussi mooy mettre ko en œuvre dans la durée mhm. li ci xaw njort aussi mooy préambule bi xamal na boppam ne suivi évaluation mooy suñu problème dinañ ko def waaye loolu dañ ko yàgg dégg aussi conseil des ministres amul conseil des ministres boo dul dégg président ne j'attache du prix au suivi et à l'évaluation léeg sax mu fàtte ni waxoon na ko waxaat ko donc affaire yi nekkatul rek ci ay déclaration d'intention profession de foi ak teg ko comme nu ma ko waxee bon sens la am na bon sens ci mesure yi nga xam ne nii def nañ ko parce que loolu xam nañu gàllankoor yi transport bi maintenant nga teg yëpp ne nii lañ koy doxalee ça peut être bien on attend la mise en œuvre. processus bi nga xam ne tey moom moo aboutir ci protocole boobu ñu signé tey mhm. euh, par le premier ministre ban jàngat nga ci am. waaw xam nga am na lu ci berte. Mhm. Euh, lancé concertation rek après accoucher c'est le terme de mesure. mën nga jàpp ni c'est pas inclusif wala te amul wu ñu nit ñi may ñu leen peut-être ñu xalaat waxtaan peut-être améliorer ko xëy na li mu ne këtt ni jonn la da gis ni tey xëy na chauffeur bu ñu demee ba waxtaan ak seen njegenaay sax dinañ dinañ tàmbali wax ni non lii mënul dugg fii loolu luy mën a nekk la moo tax peut-être même ci jooni jooni bi woote woon concertation doon na luy gën ak maye diir ak it yenn mise en œuvre yi am na yoo xam ne nii boo ko defee moratoire kenn du la ci jam nga ne ah lii am na du yoon waaye tolloon na situation toll na foo xam ni du pour mu jóge fi suba suba suba dañuy maye diir fii ak diirub ñetti weer dafa war a jeex tàkk loolu li muy éviter mooy boo jëlee problème mu euh, pneu yi par exemple te dina feeñaa ah ci mise en œuvre je pense que euh, li principe la rek mais dinañu gën a waxtaan mu ngi mel ni bu ñu def mu ngi mel ni bu ñu defee loi ba pare décret ya mooy organiser ni nga xam noonu lañ ko appliquer pneu usagers yi soo jëlee soo soo seppee par exemple boo nee war naa jeex ci 72 heures yi xëy na ñi nga xam ne ñoo yor seen stock problème la parce que doo leen ne sànni leen ko foog ñu jaay ko da leen di may diir pour ñu jaay ko écouler ko parce que xalaatuñu gouvernement bi dem jënd stock bi ne leen comme noonu léegi jën nañ ko dañ koy yàq ñi nga xam ne aussi da ngay xam ni affaire yi ay ay bon de la peut-être am na ñoo xam ne commande nañ loo xam ne ñëwagul dana fekk dana fekk délai bi dugg si ni ñuy def ak moom bu boobaa dootul duggati donc yooyu mooy tax am na yoo xam ne moratoire mun na ci am mais surtout am na ci mesure yoo xam ne mën nga jàpp ni. émotion bi la parce que <clears throat> pneu usagé quand ñu wax ko mën nañoo jiiñ pneu lu bëri mën nañoo jiiñ pneu lu bëri mais pneu usagé dëkk ya muy jóge sax dafa am dañ koy utiliser deuxième main <laughs> c'est-à-dire que il n'est pas dit que pneu occasion fii rek lañ koy jaay mën nañoo jiiñ pneu nag lu bëri mais dëkk ya muy jóge bu ñuy bu ñuy bu ñuy jaay pneu boo boo xoolee soixante dix pour cent ya du ñu jënd pneu yi bees bu ñuy changer aussi ah donc loolu aussi il faut ñu wax ko maintenant li war a am mooy pneu fii suñu culture. Adja est-ce que boo xam naa ni yow dawalkat bu consciencieuse nga yow da ngay changer say pneu régulièrement t'es pas un bon exemple mais Mack Chérif. amul visite technique de mais de sa pneu fii amuñu culture. daw ba benn moment nga xool say usure nga ne ma changé pneu fii pneu bu demul ba xotteeku amul changé bënul de doo ko changé mais day bënn sax nga nga kiyaat ko nga ñëwaat ko voilà exactement même sur le contrôle routier même sur le contrôle routier est-ce que nit teewlu na foolkaati ñëwee ne saway c'est lii moom mënoo sax defaat un mètre da ngay taxaw bokkul ci suñu culture te loolu mesures yi mënoon na édicter cest di renforcement euh, formation renforcement contrôle aussi nit ñi mais camions yi nga xam ne dañuy daw nga gis pneu bi xotteeku na ba fer bi di feeñ mais day continuer di dem day continuer di romb am nay infraction yoo xam ne soo ko defee sanction ba du amende immobilisation la mais fii loo mën di def mën nga dem ak sa oto fay dem ak sa oto waxuma sax fayu boqal fayu legalement ñu téye sa këyit nga dem fay ñi nga xam ne amuñu ay contrôle contrôle technique ak yooyu nan nga mun a xalaatee ñu téye sa këyit pour défaut de contrôle technique la nga dem fay jëlaat sa oto dem te defagoo contrôle technique bi te loolu am na fi loolu moo fi nekk donc am na yoo xamante ne xëy na lii principe la mais ci mise en œuvre bi fokk ñu xool nañu koy defee mesure bi mën na poser problème parce que aussi jënd pneu bu bees attention euh, voilà c'est pas à la portée de tout le monde ah. usagers yi pneu d'occasion la mais ça ne veut pas dire que pneu yu baaxul la maintenant nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude mm-hmm. gouvernement yaa moom mm-hmm. yow yaa war a def contrôle ba lu fiy dugg baax. mais doo ne parce que mënu maa contrôle lu fi dugg baax donc du fi dugg du tout. mënuloo ne comme mënuma contrôler donc du fi dugg du tout yaa ngi lor ñi nga xamante ni mënoon na leen a jëriñ te peut-être mu amaloon leen njëriñ trop ci économie bi ni muy doxee ci aussi usage bi nga xam ne nii moom lañ ciy def te du lore parce que mën nañ ko contrôler ba du lore li ci doy waar kay mooy mm. li ñuy bàyyi lépp dugg lépp di mbalit mais am na conteneur yoo xam ne Adja boo fekkee fi ñu koy dajee da nga naan ni lii est-ce que nit soxla na ko. léeg-léeg léeg nga gis léeg-léeg nga gis ñu nga gis conteneur ci koñ yi mais. mais bu ñu dajee da nga naan mais lii est-ce que nit am na ci am na ci soxla dangay dem jël loo mën a indi mais mais mais heure bi laay wax man vingt trois heures quand même euh, ba ba cinq heures du matin loolu aussi ça risque de poser problème parce que am na màggal dina fi am gàmmu dina fi am tabaski dina fi am heure yooyu noonu noonu noonu aussi est-ce que voilà ça aussi est-ce que c'est une mesure bu nga xam ne euh, am na porte trop et puis il y a quelque chose qui relève quand même de l'émotion mmh, accident de guddi rek accident de guddi rek du guddi rek il est vrai statistique bu ñu wonee ni guddi la gën a bëri facteurs yi lan la nee nañu quatre pour cent waaw mais mais bu ñu bu statistique wonee ni guddi la facteurs yi lan la guddi lan mooy xew défaut d'éclairage ok mënaguñoo éclairer pexewuñu aussi ba ni oto war a dawee guddi ñu koy dawee fii il at admis que il at admis te ñëpp faar la ñuy dawee mhm. loolu war na am contrôle mhm. il at admis que nit ñi seen oto yi ni ko waa ji doon waxee fii mhm. boîte de nuit la te bu la yi tegoo. mais doo gis quoi mais loolu anti brouillard sax la ñu mais non da ngay gis koo xam ne cest à lépp la taal lépp luy tàkk ci oto bi taal na ko. xamul sax lu muy jëriñ. ant la anti brouillard sax xamul lu muy jëriñ mais moom kon contact na lépp lay taal. mais loolu mën na léeg-léeg nga yem ci nit. gëlëm nga. mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui va changer Abdoulaye euh, dañuy wax quand même tey euh, introspection bi sax nga doon wax ñi dañu naan dëpp national toog xoolaat suñu bopp on se rappelle ak mesure yu ñu jëloon lan moo nar xew ci ay coppite. lii euh, li ñu bëgg a wax. li ci nar a soppeeku mooy. li ñëpp d'accord yi mënul continuer ça c'est déjà une bonne chose def naa ni nit ñi jël nañu conscience ni mënula a continuer li soppeeku mooy peut-être dafa xàll yoonu dugal transport ci wàllu modernité modernisation ak jafe-jafe yu mu mën a am xoolal par exemple am na ci mesure boo xam ne peut-être moo gën a révolutionnaire ci 22 yi te day changer lu bëri dématérialiser contravention. mooy numéro 15 bi. dématérialiser contravention mooy lan léegi ay loxo loxo. dootul amati. loolu c'est très important parce que corruption li koy dindi. Mhm. mooy limiter intervention humaine. fu ñaari nit di mënee séq. mbir mi waxtaanee ko. dana régler lu bari mais est-ce que ci processus bi jusqu'au bout. amul fenn foo xam ne nii nit a fa nekk parce que bu amee ci chaîne bi foo xam ne nii fa la nit di nekkee pour lijjanti ko ak ka nga xam ne nii moom moo euh, am problème contravention boobu maanaam bu fekkee ni ok dañu dématérialiser fi nga xam ne fa la la takk der bi di verbaliser waxaale hmm, munu faa am mais fa ngay demee di jëli sa këyit bu dee nit a fa nekk te xëy na mën na faase la nga xam ne nii am na ku ko def te mu jaarale ko yoon bu boobaa it réglé wuñu problème bi véritablement. ñu ko déplacé. dématérialisation bi soo ko defee ba pare dafa am yoo xam ne mooy préalable yi fii Sénégal léeg li tax doo bëgg bàyyi nit mu dem mooy bu la nee fii laa dëkk xamal ni sànni na la. adresse yi. fii am na fi ñoo xam ne seen carte d'identité Tambacounda moo ci nekk peut-être bañ géejee na ëpp na vingt ans. am na ci am na ci carte d'identité feeñoon na ci élection yi am na ci koo xam ne carte d'identité adresse Rufisque foo koy jeex assurance yi wax nañu ni li gën a poser problème ci euh, bu constat amee fausse adresse délit de fuite boo xam ne duñ la doo mën a jàpp nit ki fenn. ñoom it dañuy layal seen bopp rek. waaw non affaire yi acteurs yëpp ku nekk am na ci wàll. parce que assurance boo leen boo leen toppoon. bu ñu demoon ba ci cëppaandaw gi. lijjanti lii. Euh. assurance am na loo xamante ni nii munoo teggil sa bopp responsabilité ci oto boo xam ne contrôle technique ba baaxul xëy na yow munoo juger ni baaxul mais assurance ba nga koy daggal. nga xam ni ah porte bagage warul nekk ci oto mu présenté la oto boo xam ne nii yow si caractéristiques yi gis nga. poids chargement bi ak yépp nga xam ko daggal ko gisaguma assurance wala déggaguma assurance bu ne nit ah du la daggal assurance parce que yow li nga ma bëgg a assuré lu na correspond moom koy dana la taxé loo xamante ni ni xëy na mm, daf lay won ni li nga may laaj dafay euh, dafay gën a cher parce que oto bi dafa gën a màgget donc assurance bi day gën a cher wala sa oto bi dafa dafa puissant trop dafay gën a cher mais pour pour assurance ne nit non la assuré parce que respecté woo réglementation wala nekkuloo ci norme yi loolu amul li am ba des daal mooy ñu xam ni lu mënta ñàkk la mesures yi y a rien de révolutionnaire c'est des mesures de bon sens kuy xalaat tuuti ci système mu transport peut-être mënoon ngaa jiitu waaxu ndaje mi ci li nga xam ne nii moom la ñu war a def. mais mais Ablaye xam nga sénégalais yi fi mu ne nii li leen yitteel c'est pas c'est moins les mesures yi ñu jël parce que daan naan rek jëloon nañu fi six commandements. Mm-hmm. Euh, si recommandations en euh, deux mille. 17 17 mm-hmm. mujjul fet gisuñu ko sax euh, mais euh, quelque part également est-ce que euh, yow amuñu njàkkare ci mesures yi ñu jël mu mel ni les dix recommandations yi ñu jëloon en 2017 mais bien sûr bien sûr parce que nag dafa am loo xam ne pour nit ñi nangu ko dafa njëkkee ci kilifa yi ci njiit yi Sénégal leadership bi moo manqué lii est-ce que waroon naa mën a xew ba ñu jàll te amuñu koo xam ne nii sanctionné nañ ko waxuma sanction wu parce que mooy responsable mais lii ministre buy gor bu sa yaram di daw tuuti li waroo toog dañu waxante dëgg parce que boo toppee lépp lépp lépp am na chaîne de manquement la responsabilité léeg-léeg nga xam ni njombe lii ci yow la xewee ça ne veut pas que yaay responsable bi waaye responsabilité morale bi nga xam ne moom nga ci gàddu. donc mais démission wala euh, limogeage du ministre des transports c'est-à-dire naka la naka la mën naka la mën a toogee. nañ ko lim rek surtout surtout aussi il faut le dire <laughs> Abdoulaye Diouf Sarr def naa bi ñu koy wàccee ci lu mel nii la ñu ngi koy fàttaliku ci opi opi euh, lakk hôpital bi. Mhm. pourtant ministre la mënoon na ne man nekkuma ci biir hôpital bi nekkuma ci lenn président wàccee ko am na loo xam ne boo joxee ci exemple. bu fekkee ni exemple ba matul li ngay yàq moo ëpp li ngay defar parce que lii bu amul kenn koo xamante ni nii seppi nañu ko ci waxuma daan ko parce que mooy responsable premier responsable mais responsabilité morale bi mu gàddu ko mu tekkilul boppam ndongo tam tànkam ñu wàccee ko li fay Faye nii warul woon liir di lire mesures yi parce que mesures yi muy liir nii moom fan la nekkoon ba lii amul xam nga lii kersa la sax en fait toog di liir mesure yii nga xam ne nii moom mu ngi koy wax parce que li muy wax nii est-ce que moom xelam daw na mbalax na mu ne mais lii lu tax defuma ko man ci sama coobare en tant que ministre c'est très grave en fait et l'image là que muy liir mesure yi je pense que quand même il doit avoir un problème de conscience parce que liir des choses yoo xam ne nii peut-être yow mooy sa responsabilité moom lañ la fi tegee defuloo ko ba njombe lu mel nii am nga xoggaliku nag léegi toog naan nii la ñuy doxalee j'aimerais pas être à sa place te li gënoon gore li gënoon a yenu maanaa pour l'exemple aussi parce que pédagogie par exemple la waruloon toog bay lire mesures yi loolu vraiment day gàkkal euh, li nga xam ne nii kilifa yi wane nañ ko pour jël à bras le corps problème bi du woon moom c'était pas sa place encore moins lire ce texte ce texte là dans sa bouche mais ça veut dire quoi ça veut dire que mais j'ai échoué parce que lii laa waroon a def te ma ko même le symbole de lui faire lire ce texte la je ne sais pas à quel moment il se rend que il, il, à quel moment il ne s'est pas rendu compte que c'est son échec te mënuñu continuer noonu. yan gàllankoor fi kenn gënu fi kenn moo mun a am yan écueil moo mun a am tey jii. Euh, ci batterie de mesure yi nga xam ne jël nañ ko surtout dans la application. waa xam nga mesure boo ci jël rek dafa mel ni lii gàllankoor bi mooy mise en œuvre bi euh, ak mesure d' accompagnement xoolal tey mooy euh, Malick boo nee porte bagage amatul te loolu moo war. fu bagage yi jëm léegi. xam nga xam nga defe naa ni chauffeur yi j' espère que du leen du ñu leen dégg ñu contester ne porte bagage warul am parce que règlement bi moo ko nanguwul donc dañ cee war a d' accord. mais ñun ni ñuy tukkee dëkk ak dëkk wax dëgg fa yàlla du comme kuy liggéey di boot sa sac à naka la nit ñi def seen bagage léegi est-ce que oto yi oto transport région en région xanaa dañuy changer peut-être xeetu oto yi ñam parce que am na oto yoo xam ne mais dañuy am coffre mm-hmm. boo dugalee ba li mu li mu mën a jël mu dugg jeex na mais lii boo amul coffre fii amul kenn ko fi ver ko amul wëlis fu ñu koy dugal <laughs> amul. mesure d'accompagnement parce que lii li ko indi mooy nga yor soixante-dix personnes ku nekk yor valise ak yokki leneen Fati buy dem xam nga bo bii moom defe naa ni nañ <laughs> bàyyi noonu rek image bii moom je pense que wane na boppam parce que li li indi porte bagage yi centre de gravité oto xam nga. c'est oto ki ko defar ni mu ko defaree amul dara loo ci mën a wàññi wala loo ci yokk. parce loo ci def leneen techniquement. contrôle technique ba sax waratul mën a valide centre de gravité bii xam nga romb romb na ci fi mu waroon a suufee kawe na kawe boo xam amul équilibre loolu nag naa def ko bañ a ko booleeg ay mesures d'accompagnement yoo xam ne moo koy gunge ci fan la naka la nit ñi def pour tukki ci seen bagage ak mesure malik mhm. euh, vingt-trois cinq heures man gaw ma ni solution la même si statistiques yi dañu ko wone mais statistique dafa am loo xam ne ni leneen lay wone parce que day wone dañu war a jàngat lan moo tax mu nekk guddi statistiques yooyu boo ko dindee ba pare nan ngay doxalee après implication yi parce que léegi ku jege fu sori donc Ziguinchor à partir de quel moment la ñu dul chargé ti rek lay goo problème yooyu parce que ki chargé à 18 heures Ziguinchor bu traversé bac bi war fa yegg yegsi war fi yegsi au delà de heure boobu nu muy def xam nga waxaguñu nu ñuy def est-ce que dañu am aire de repos yoo xam ne fa la nit ñi taxaw fanaan xam nga loolu am na ci poste frontière yi mm-hmm. frontière soo ñëwee fekk ñu tëj ko ñëpp fa la ñuy fanaan mais est-ce que tey am na dispositif boo xamante ni te entrée de région boo xam ne bu la heure ba fekkee foofu da nga fay fanaan wala mm-hmm. xam nga foofu la yëf yi di tàmbalee nga ñëw ñu ne la 23 heures jot na waaye yow yaa nga chargé fële depuis 18 heures mm-hmm. mu dese la 2 heures pour nga yegg si supposons euh, à Kaolack ou à Mbour ou ailleurs naka la ñuy def da nga fay toog fanaan fa je pose juste des questions donc oui mais euh, accompagnement état d'urgence amoon na loolu yëpp oui mais c'est pour ça c'est pour ça parce que après on on on s'est ajusté moi je suis d'accord qu'il faut s'ajuster mais dama ne mesure loolu peut-être moo waroon a bokkaale ci waxtaan bi mm-hmm. mais bokkul ci waxtaan bi manifestement parce que on sait comment ça s'est passé aussi hein on a eu de même de des acteurs même des acteurs officiels déroulé bi xam nañu euh, ñaari présentation yi nga xam ne nii def nañu ko et puis les débats mais ça n'a pas permis de dire comment on va mettre en œuvre encore une fois mm-hmm. mesure de bon sens la donc mesure yu baax la parce que mesure yu ñuy njortoon la maintenant ci doxalin bi il y a beaucoup de mesures dans les 72 heures ça difficulté bi mooy dans les 72 soo ko deful rek yàq la parce que fi ñu lay xaaree boo ratee délai ya nga ko war a defee parce que va évaluer hein, dans les 72 heures on sera là pour voir un peu décret bi nii fan la fan lañ ci toll. soo ko ratee rate nga li ci des yëpp. parce que soo ko ratee yàq nga peut-être yéene ak élan bi nga xam ne nii moom moo ci war a am si par exemple la mesure de euh, l'arrêt des importations des pneus ñu yegg ci délai bi ñu gis ni pneu yaa ngi fi toujours mais ça voudra dire que mesure bi on a euh, ñu ko effectif bu fekkee ne dañ ko regarde les sachets plastiques sachet bi sachet plastique ku mën a wax ni sachet plastique jeex na ci dëkk bi évidemment les grande surfaces yooyu. Eh, ñu ngi def effort. day la gën a bari. mais voilà. <laughs> au marché mais moto Jakarta yi waxoon nañ ko fi en 2017. non mais man ma léegi sax mais pour dellu ci déjà ci transport bi déjà ay jamono Covid bi bi mu fi ñëwee ak manifeste yi nga xam ne dañ ko génne woon wax ko dañ koy def ci garage mais mais loolu mësuñu ko appliquer wala application bu. Yamamaay lañ ko def après tout le monde a oublié ça vite fait. cher cher c'est bien que tu évoques euh, la période de Covid parce que il était admis il était admis. que plus rien ne comme avant bu ñu génnee ci Covid. c'est ce qu'on avait ba amee batalu Joola. oui mais boobu sax xëy na li tax dew ma fa. sori na. mais mais Covid plus jamais ça aussi mais Covid ni mu tënkee àdduna bi. tënkuñu te mu nekk fi soriwul sax en fait ñu ne woon jàppoon ni sax marché dinañu tàmbali marché di am répit. parce que on se rendu compte que c'était une bonne chose que marché bi di noyyi ñu raxas marché ñu tëj ko ci benn jour nettoyer raxas mais loolu avant Covid di jeex sax la fi jeex en réalité c'est pour ça aussi on peut se permettre d'avoir pas des doutes mais de poser des des questions si mise en œuvre bi et que bu mu doon li ñu autorités yi habituées déclaration d'intention ak wax wax bu rëy fi ma doon gëmee ni ñii ñu ngi ci mooy les symboles c'est important les symboles man cette image là du ministre Mansour Faye qui lit cette résolution avec un sourire pratiquement genre je le non cette image là me conforte pas que ñii bëgg nañoo trouver solution ci affaire bi xëy na euh, émotion bi la il fallait donner quelque chose un os à ronger def nañu ko et ils ont la chance que c'est des mesures de bon sens bu ñu tàmbalee woon pour wax ñu ne euh, moto bu amul euh, papier dañu lay fourrière ma ne ñii jànguñu sax ci li fi xew jàngewuñu sax ci li nga xam ne moom moo fi parce que am mesure yoo xamante ne soxlawuñu ko ciy dugal. mu ngi mel ni ñu boole woon ci mesure yi ne waaw léegi alkaati bu nekk da nga war a contrôler teg ko ci yoon. on n'a pas besoin de dire ça parce que loolu mooy liggéeyam et j'espère que. Euh, la finalité de tout ça l'application mooy les de défense et sécurité quand parce que ñoom bu fekkee ni defuñu li nga xam ne ni moom moo war tey alkaati yi war nañu am kersa quand même en réalité parce que bàyyi di bàyyi loo xamante ni nii jaaduwul tegul woon si yoon te mosoo wane ni dañ laa tënk parce que affaire de porte bagage peut-être que alkaati mënoon nga gis alkaati bu ne non man porte bagage yi saway li ma jàng du fi romb bu boobaa si le débat s'était pose à ce parce que alkaati dafa am alkaati bu bëgg def liggéeyam bu boobaa ñu mënoon a wax mais ñoom ñëpp a bàyyi muy jàll camion yi nga xamante ni nii le plus dangereux amuñu lumière tient une mesure ñu ne léegi âge oto yi nga xamante ni nii euh, transport la ñuy def exploitation dix ans qu'est-ce que ça veut soo xasee ba jënd sa oto di nga ko exploiter dix ans est-ce que xalaat nañu ci léegi au au-delà des dix ans bu dix ans yee jeexee. moto droit exploiter ko ci transport mais qu'est-ce qu'on prévu pour réformer ces voitures parce que bu fekkee ne oto boobu du jóge ci circuit bi ñu yóbbu ko casse ça veut dire que dañuy yokk oto ci kaw yeneen oto xoolal mesure bi banque mondiale accompagner Sénégal pour Tata yi lan la waroon ni jëriñ ñu génne fi car rapide jaune noir yi nga dugal ñu jox la Tata pour faire simple loolu la woon mais tey la jaune noir gën a bëri te pourtant dañu waroon génnee leen progressivement ba mu jeex donc ça veut dire que nekkul finalement système de remplacement mais dafa yokk te loolu moo indi xat-xati dëkk bi parce que système de remplacement mooy oto bi màgget ba nga xam ne nii théoriquement kii waratul daw parce que ay organam jeex na oto bi sax dañu ko modifier faf modifier ba contrôle technique oto bi waruloon a jàll parce que kii koy contrôler mënatu la reconnaître oto bi amul dara lu correspondre ak ak ak li nga xam ne châssis jàmbur la yor yor bopp jàmbur lépp lu ñu modifié bu xasee ba cukk bala moo tàkk léeg-léeg pour mu pour mu pour mu bon je euh, excusez euh, li ma bëggoon wax mooy euh, am na si yoo xam ne Abdoulaye bu xasee ba tàkk pour mu taxaw problème la gars yi feem li ne la ñuy def mu taxaw léegi léegi bu jubee bu jubee nit ñi da ngay gis ñuy defi feem di di forcer bi xam nga loolu wóorul parce que xam nga ni lii frein yi baaxul mais terewul day day jàll visiter ni day daw ci dëkk bi wax naa la am na visite technique yu nga xam ne doo oto ba du fa jaar non déjà le fait que ñu nangu waaw xoolal bi par exemple bi pneu bi lay lay dañ koy kale waaw dañ koy kar foofu laa bañoon a egsi wala ñu sànni dara ci suuf mu taxaw non pousse mu tàkk mais mais xoolal euh, dans la réglementation si on était mënuñu autoriser ay camions ñu jaar ci pont yi parce que pont yoo xam ne danga ko def ci suuf giratoire mais loolu dans tous les pays normaux mhm. un mais du yéeg pont mhm. surtout pont yi nga xam ne pont urbain yi nekk ci biir dëkk nga xam ne pont bi pour mu gaaw la rond-point nga fa camion yàkkamtiwul dans le principe c'est ça mais Ablaye looloo tax mu ne xam nga mesures yëpp jël nañ ko euh, mais ki ci ëpp solo mooy ñi nga acteurs yi nit ki. nit nit nit parce que même matériel bi lu mu baax baax baax tali yi lu mu baax baax baax ki nga xamee ni. moom mooy yor oto bi boroom cerveau bi su normalul yëf du mës a normal. te kooku na la ñuy lijjantee problème am. na benn point bu ci vingt-deux yi bu ñuy wax ci la formation ak réforme auto école yi. Mm-hmm. mais on est dans un pays où on a que am na ñaari voies pour euh, pour am permis. jàng sur le tas mais baax na bien sûr mais auto éco permis amul fenn foo mën a jaar ba waroo jaar auto école. même l'obtention du permis Abdoulaye. ça pose problème euh, euh, non. am na wax fii am na benn doomu bu mbëkk. wa mais et puis fu mu mujj mujjul mais mais ay kilifa ci boppam du mbëkk nañ mbëkk mbëkk nañ fi nit ci autoroute te mujjul fenn. nañ ko ci une journal ça n'a pas a loolu xam nga lan moo ko indi xam nga lan moo ko indi. mais xam nga lan moo ko indi lu mel ni ministre bi toog di liir li nga xamante ni moom moo nekkoon liggéeyam defu ko ba ñu yegg si fii di jël ay mesures amul amul kersawu sax bañ liir lii. mais man man loolu laa mënul comprendre moom ci xelam bi muy liir lii yaramam est-ce que dawul xam nga daf lay fàttali premier ministre Boun Abdallah Dionne bi ñu waree supprimer poste premier ministre yónni ko pour mu ñëw expliquer sénégalais yi que ni poste bi amul woon njëriñ en fait dafa doon yéexal yëf fii alors que yow yaa ko incarné pendant cinq ans mm-hmm. sofantal mënul weesu loolu mm-hmm. ministre bi mun na épargner boppam moom toog di lire mesure yi war ko fi woon a fekk. Mhm. vraiment bu ñu bëggoon dugal ci bopp nit ñi dañoo bëgg mu changer. Mhm. ministre Mansour Faye mënu mhm. fee toog. waaw mais déjà si permis yi ñuy wax nii xam nga euh, permis yi tamit euh, c'est vrai euh, les ñi nga xamee ni ñoo yor ni ñuy ni ñuy wax les nouveau la ñi nga xamee ni ñooy door a am permis tout ça rarement nga leen di dégg ñu impliqué wu ci genre accident yi. da xool fii jigéen ñi sax ñu bari jigéen di leen dawalal sax moo moo la ñuy gën a bëgg parce que dañu naan jigéen bi moo gën a prudent moo gën a set dawal ko góor ñi kon loolu ça veut dire que kon mbirum comportement euh, mi ngi mi ngi ci accident yi ngay gis yi yi def victime yu bari ay chauffeurs yu chevronné ñoom ñoo nekk ci volant yi que Cheikh gis nga suñu société ni mu bindoo boo nekkee di benn bennal yooyu ci tali bi di dawal normal. jàpp na yambar di dawal normal dépassé woo foo comme mënoo dépassé dépassé woo nga nekk di benn bennal klaxonné la yuuxu la leen way mënoo leen dawal sax di mënoo leen dawal sax di yor oto et j'en passe sur les remarques sexistes à l'endroit des femmes quand même mm-hmm. léeg-léeg moom ji waay jigéen la suñu société moo bindoo moo bindee moo bindee bindoo noonu da ngay gis ni ci tali bi nga yor sa oto bu baax bu dëgër bu la leer ni yow boo tegee rek romb nga romb nga ki mais xoolal kooku nekk di dëmm dëmmalu sa kaw. Hmm. yaakaar ni moo la dàq dawal. waaye demal waay nga taxaw ci feu feu tricolore mu rouge nga taxaw yow di jël sa temps di xaar waaye ñëw romb la fër. dem yoonam ñi ci ginnaawam yëpp fàq ñoom it mhm. bàyyi la fa yow nga taxaw tu es comme un con. te pourtant yaa nekk ci yoon. mais yow finalement tu te poses des questions ma ma dem wala bu ma dem. <laughs> soo ko tegul ci principe ah, ah. comme dem nañ xaaral ma dem. waaw Ablaye on on peut quand même y arriver parce qu'on n'est pas un peuple à part. da ngay def ci yeneen dëkk yi mais mais le problème nag maa foofu la de. Ablaye Ablaye war nañu war nañu le problème il est il est chez l'homme il est humain. il est humain c'est que war nañ ci war nañ ci on doit pouvoir changer. yow da ngay ñëw ci tali bu xat ñu créer troisième voie xam nga li ñu doon wax sànq Ablaye. boo xamee ne amu fa yoon. xam nga li ñu doon wax sànq mooy disons euh, ñiy dawal ci oto yi. Hmm. ñiy dawal oto yi ci kër yi la ñu jugee. kër yi bu fekkee euh, defaruñu jikko yi euh, ba tabax ay nit ñu nite bu ñu déggee bu ñu yii nii du fi du fi gëj malheureusement c'est le constat à faire c'est que bu fekkee tabax ñu nit yoo xam ni dañoo nite ci kër yi mhm. bu ñu génnee aussi nii la ñuy def nii lay mujjee donc je pense euh, loolu lépp société bi lay interpellé mhm. du rekk responsabilité individuelle mais xam partagée dañ on y arrivera pas comme ça je je vais te une réponse de de de du Pakao on n'y arrivera pas pour ne pas dire euh, une réponse de Normand on n'y arrivera pas comme ça en tout cas. mais en quoi faisant maintenant. parce que xam nga lu tax. dañoo ñemewul li nga xam ne nii moom la ñu war a def. mesures yi peut-être saxlawul woon sax en réalité. parce que on applique les dispositions du code de la route. de la route c'est am na lu bëri loo xam ne jeex na. code de la route la demee léegi code naan on applique les dispositions du am na lu bari loo xam ne jeex na code de la route dafa régler lu bari. parce que yaa ngi wax ci guddi gi accident yi am ci guddi gi am na ñoo xamee ni euh, par exemple dañuy euh, éblouir. mais chauffeur bi nga xamee ni mooy ñëw nga xamee ni. day la ñuy wax mais day éblouir te te loolu. te loolu code de la route da koy tere. te loolu rek. motif d'accident mais te fii c'est admis même Mali gis nga loolu dafa yomb. Mhm. le code de la République te dit quoi le premier principe c'est que foo adapter sa vitesse en fonction de sa visibilité guddi boo éclairé wul waroo daw comme bëccëg ni ngay dawee bëccëg loolu mooy disposition code de la route est-ce que booy taw da ngay nekk di fëx comme ni ngay dawee normal mais code de la route daf la imposer par temps de pluie par temps de poussière ou quand il y a déficit visuel da ngay adapter sa vitesse. même le même l'argument de tali yi dafa xat ok mais su xatee su ngeen benn bennale di ngeen xaj léegi la nga gis ay camion di war a daje mayante njëkk. kenn ki wàcc wala kenn ki code de la route courtoisie la léeg-léeg ay nit di ñëw ku nekk di hésiter ba ñu far ne tuy te am na koo xam ne bu taxawoon une demi seconde. ça passe am na ku dawal xelam ba ne mais lii nag mooy ñàkk chance dëgg dëgg dëgg ci accident bi. mu ne xoolal fi fi fi pneu bi tojee. tombeek beneen bus di ñëw. boobu mënu koo éviter ba ñu ba ñu daje. xam nga kooku. mu ngi jël lu yomb. parce que boo ko tegee ci concours de cir mais concours de circonstance dafa am lu ko waral. j'espère qu'on expertisera. Mm-hmm. oto bi ci boppam. très pneu yi. c'est déjà fait ñu c'est parce que ñu ngi wax ni naan ñaari oto yi seen visite technique dafa. xam nga dafa am dafa am dernière intervention il par rappeler un incident un incident tragique un incident tragique man qui m'a marqué. Mm-hmm. c'était le jour de l'ouverture de la campagne de la présidentielle. Mm-hmm. mooy oto bi ndaw si euh, mbëkkoon fële ci amitié. Mm-hmm. avec euh, avec les enfants. ba ñëpp des ci. mooy Fati est-ce que mi waroon nañoo toll ci jamono boo xam ne raafkaat boobu amul dara loo xam ne ni duñu ko ci expertise pour xool parce que njort aussi loolu mooy njort bañ a jàpp ni lépp rek ci nit ki la xëy na am na lu fonctionné wul à cet instant parce que la vitesse bi mu demee mën nga am njort bu gàtt ne nit bu nekk bu ànd ak sagoom ak lépp du ko def surtout que c'était du ci autour du ci leneen c'est un milieu urbain xëy na mais xëy na hmm. techniquement am na lu fonctionné wul. Hmm. lan moo tax des fois dans les pays là ñuy rappeler ay voitures. Hmm. gis ci benn défaut bu ndaw rappeler ko. ñun fii daf mel ni dañoo gënale suñu bopp sax. wala jomb nañu ñun pour wax ni défaut bi ci oto bi la. loolu yëpp bu ñu ko gëstuwul. am na loo xam ne nii mesures yi bon sens la. jarul woon ndaje bu rëy bii. mënul woon a ñàkk nag mais li ci génn moom. lu ci bëri bon sens la te plateau yi fi jaar. fii ci informatique ak feneen ak édition spéciale yi ñu def. lu bëri gars yi waax woon nañ ko. parce que junjoon nañu ko. maintenant mise en œuvre Fatick. merci amun ci yaakaar trop ci jikko Sénégal. merci beaucoup Abdoulaye Cissé voilà la ñu àndaloon ci jàngat bi euh, Cheikh Tidiane mi ngi koy wax ak Mokhtar ak Malick tout le monde est d'accord euh, comportement yi la d'abord. Euh, ndax euh, sànq image boobu man euh, daf ma mës a jaaxal toog di dawal di dugal vitesse sa benn loxo pare yor sa bool di añ en même temps et tu trouves ça drôle loolu je pense que ci comportement yi la te comportement yi mi ngi tàmbali ci kër gi donc on est tous responsables autant que nous sommes ndax ñun ñooy dawal di yor suñu téléphone di snap ñooy dawal di seetaan TikTok ñooy dawal également di def ay vidéo Euh, naan dañuy defar ba mu baax je pense que euh, ñun ñëpp ñoo war a xoolaat suñu toogaay euh, ñoo ñun tamit ñooy bañ a am visite technique ba pare di dawal amuñu assurance yooyu yëpp ñun ñoo koy def ñun sénégalais yi donc jafe-jafe yooyu également bu loolu nag euh, taxu ma ni amul euh, jafe-jafe beneen ci wàllu nguur gi bien sûr am na mais man côté comportement laay waxee ndax tali yi xat na léeg-léeg am na yoo xam ne amul éclairage loolu moom euh, c'est indéniable waaye ñun ci suñu biir également on est responsable te introspection bi ñuy def ñun la njëkk a soxal donc il faut ñu def suñu ndëpp national waxante ay dëgg comme ñu ni neen la su ko defee rek lépp mën a jaar yoon en tout cas du ñu jug di mastawu ñàkk seen bakkan euh, ci accident bi xew foofu dans le Ndoukoumane gox bu ñu naan 6 kilo léegi léegi ñu dem ci ñaari yéen i kaay média Groupe Futurs laata loolu euh, sax mbokk yi ma jégalu sunu invité Cheikh Omar Gueye la woon euh, Cheikh Omar Gueye nag mooy directeur général de l' agence nationale de la sécurité routière malheureusement.